mbokk yi di rafetlu woon bi ak télévision Futur Média ñaari waxtu jot na xibaaru digg bëccëg gi la ca gën a fës grève ci dem ak dikk bi chauffeur si bootu ci CNTS xëy gaare seen i woto tey ak suba lañu ko namm seen i ñaxtu toll ci fukki poñ ak ñaara askan wi ci waxtu woowu dundu ay jafe-jafe daw buuxante paas yu yokku bëgg a dem te doo dem di lu ñu ko teg syndicaliste yi xëy it am ndaje ak ay kilifa ngir saafara coow loolu Louga Sida ba songu na fa fu benn góor wóppee eh, juróom-ñaari jigéen ña ngay dund ak feebar bi faf kuréel gu fa ne ni moom mooy taxaw kon eh, xeex yëf yi kondiir yi amut kubéer waaye it eh, mbënn mi saafara kon la ca bëgg ca na mu gën a gaawee gouvernement bi jël ci ay mesures njiital bés du ñàkk moom moo xam ne lu ni mel ma nga yëkkatee yooyay kaddu kon fële ca mbuur ci inondation bi mu doon tàmbali foofu dinañu ci dikk ca kanam tuuti waxit ci wàllu bitim réew Euh, France fenn kenn moo fa doon jéem ay waaye mujjuta sotti waaye it yu ñu gën a jege Mali ñu fay xaarandi euh, résultat ya IBK mel ni kon moom moo jiitewagul ci tendance ña fa jëkk a feeñ yéene yi la ñu xëyee Fatima Ba dina ko faram-fàccee ni stuut ñu yaatal loola lépp. mbokk yi di leen gërëm di sant di rafetlu kon euh, teewaay bi ci télévision Futur Média nañ leen ko waxee xibaaru digg bëccëg gi euh, grève bi nga xamante ni sufar si bootu ci CNTS sumb nañ ko la ñu koy dooree ñaari fan kon la ñu wax altine tey waaye it euh, talaata ak suba ba ñu ko dogalee nag waa Ndakaaru waaye it yeneen i gox dund nañu kon ay jafe-jafe ñu bëggoon a dem mënuñoo dem bari nañu dem sax transport urbain bi am na ñoo xamante ni ñoom topp ñu ci grève teewut am na ñoo xamante ni euh, dogal bi indil na leen kon ay jafe-jafe dinañu ci dikk ci kanam tuuti ak reportage Pape Cheikh Ndiaye Diouf waaye it réaction ku demee ni yàlla sànn ndooy na mu kàddu yamu ca yëkkati euh, ca kanam tuuti lay doon Abdoulaye Fam fële euh, ca Louga Pape Cheikh mel ni kon teew na ci wàllu gàllankoor yoo xamante ni askan wi dund nañ ko ak mesure grève bi sëfër si jël reportage am mu ngi ci ànd ak Yaya ci caméra bi ginnaaw grève bi syndicat transporteur yi bootu ci ginnaaw CNTS amal ñenn ci askan wi jànkantooyal ay jafe-jafe ngir àgg ci seeni bërëbu liggéeyukaay. grève bi métti na parce que dama obligé 36 laa doon jël mais dama obligé jël 219 ba Wakaam après ma soog a jël 217 euh, ba croisement Almadi soog a jël euh, Clando ak Méridien. grève bi dafa métti parce que yàgg naa fi depuis 10 heures maa ngi xaar oto ba tey mënuma koo am. kii moom di ab chauffeur particulier ma ngay dimbali ñenn ci ñi war a dem ci seen bërëbu liggéeyukaay ngir ñu bañ a tardé. yow Flamme dama xëy nii dal ci rek maa ngi yóbbaale ay client bu baax léegi gars ñi nga am problème ci kaw tali beeg yooyu noonu quoi wax dëgg yàlla métti na ñu ngi tardé na seen liggéey mooy loolu même kii nii dama ko fekk ci kaw tali dama ko yóbbaale ginnaaw grève bi nag askan wi di ñaan nguur gi ak transporteurs yi ñu jël ay matuwaay ngir dakkal grève bi ndaxte mën naa nasaxal koom mu réew mi. transporteurs yi balaa ñuy grève tam war nañu xalaat population war nañu déggoo daal ci cadre ak état bi bu dee côté état bi la ñu amal problème ñu déggoo quoi. lii day yàq économie dëkk bi quoi. grève ñii di yëngu ci wàllu dem ak dikk bi sonal na lool ñenn ci askan wi ñoom ña ngay ñaan nguur ga mu jël ay matuwaay ngir dakkal li ni mel. du ñàkk solution am ndax nguur googu mu wax euh, léegi euh, kon ay euh, yenn ci ministre am yu yëf yi soxal ñu ngi daje ak syndicat kon ñooñ di chauffeur si ngir amal ay waxtaan xëy na am lu ci juddu loo xamante ne askan wi dina ca gis seen bopp fii ak booba nag fële ca Touba grève bi it ñoom dund nañ ko ndem sax xalif bi woote woon na sàkku ci chauffeur si kon ñu bañ a topp mot d'ordre bi grève booba sonal na leen waaye lii di transport urbain ba maanaam ca biir dëkk ba dem ak euh, dikk Abdoulaye Fam mi ngi ci ligne bi Abdoulaye ñu lay nuyu. maa ngi lay fay soxna Ngoné. Abdoulaye mel na ni euh, li xalif bi ñaanoon foofa sofas si euh, teewut ñoom doxal nañu la ñu bëgg. waaw waaw mel na ni noonu la noonu la demee ndax fi nga xam ne moom mooy dëkk bu tedd bi di Touba. transport bi maanaam dem beeg dikk bi doxu fi ci subaak léegi ñi nga xam ne ñoo bëggoon a jógee Touba dem ci yeneen dëkk yi moo xam Dakar Kaolack saint lii ak yeneen dëkk yi ci biir Sénégal. jotuñ dem moo xam bus la moom moo xam Ndiaga Ndiaye la moom moo xam cette place la euh, garage Dakar bi daal dara doxu fi maanaam amul oto bu génnee Touba génn dëkk bi ngir yóbbu ay euh, way dem yi waaye nag euh, li nga xam ne ñoom ñooy transport inter interurbain bi moo xam li ñu tuddee fii Mbàkke Touba yi la ak Tata yi ñooñu it ñëpp a ñëpp topp grève bi am na ñoo xam ne. topp nañ ndigalu euh, sëñ bi euh, mi nga xam ne dafa ñaanoon chauffeur yi ñu bañ a topp euh, gerew boobule eh, am na ñoo xam ne ñu ngi ci daw waaye it am na ñoo xam ne dawuñ ci moo xam tataay la moo xam mbàkke tuubaay la eh, ñi nga xam ne nag biñ jokkoo ak ci ñi wër sëñ bi ñoom ne nañ eh, sëñ bi ci boppam bu sañoon waxul sax tuubaa rek waxul sax rek gerew transport bi waaye bu sañoon pour gerew ci boppam baat bi ci boppam moom daal jubu moom nee na buñ sañoon gerew du am Sénégal rawatina nag li nga xam ne moom moo di fii ci Touba Mbacké Eh, ñeneen ñi nga xam ne nag ñoom it ñoom ñooy eh, transporteurs yi eh, yenn kuréel yi ñoom dañ ne beddiwuñ baatu xalif bi ndax am na ñoo xam ne nee nañ baat bi yegsiwul ci ñoom moo tax ñu topp li nga xam ne moom mooy moo d'ordre grève bi xëy na bu baat bi yeggoon ci bu kàddu xalif bi yeggoon ci ñoom dinañ jëfee li nga xam ne moom moo di ndigalu xalif waaye daal li wérte woon mooy soxna Ngoné oto demul oto di dikkul fii ci biir dëkk bi di Touba rawatina nag oto yi nga xam ne ñoom ñooy génn dëkk bi di dem ci yeneen Abdoulaye Fam ñu koy gërëm di ko sant loolu muy expliqué it région yu bari te jii dund nañu boobee euh, situation euh, gouvernement bi nag euh, seen i kilifa ci wàll transport jëm nañoo jokkoo moom waaye mujj ta sotti du ñàkk suñu yeneen i xibaar ñu indi ci ay leeral Louga lañuy ñuy des wax ci lu jëm ci jàngoor jàngoroy Sida foofa ma ngay bëgg a faagaagal jigéen ñi fu benn góor woppee juróom-ñaari jigéen ñi ngi dund feebar bi loola nag ub bopp soxna yi ba waral kuréel ëmb ay jigéen euh, taxaw na ngir xeex euh, situation bi Thierno Fall. Il y avait pas longtemps, le taux de prévalence du VIH-Sida était très élevé dans la région de luga Mais aujourd'hui, grâce à un important travail qui a impliqué tous les acteurs concernés dans la lutte contre cette pandémie, la prévalence a baissé de à 0,1%. Ce taux est aujourd'hui le plus faible au fii ci région bu Louga jàngoroy sida tolloon fi tolluwaay bu xaw a jéggi dayoo taux de prévalence bi yeggoon na ba ci 0,7 pour cent waaye tey jii ginnaaw ba nga xamee ni amal nañ ab liggéey bu am solo ci xeex jàngoro ju bon ji di jàngoro jàngoroy sida taux boobu nag tey wàcc na ba egg ci 0,1 pour cent. Louga dëgg la bëri na immigration bëri na immigrant ñu defee immigration wante taux de prévalence bi daal wàññeeku na bu baax a baax a baax waaye loolu nag tekkigul ne. feebar jóge na fi. mu des ab liggéey bu am solo bu ñu war a amal jëmale ko ci wàllu jigéen ñi ndax tey jii ñoom la jàngoro ji gën a yàpp fii ci région bu Louga ndax itam bu ñu jëlee benn góor boo xamee ni si am na jàngoro ji ci wetam juróom-ñaari jigéen dañu koy daal di feelu. ndax dañu gis ne daal feebar bi daal jigéen ñi daal la gën a sonal ndax jigéen ñi nag ñooy ëmb ñooy wasin ah eh, loolu tax te dañ ne feebar bi feebaru deret la liñ ci gën a nemmeeku mooy donnante bi mooy ay et ak polygamie bi. ak itam pratique socioculturelle yi ñuy wax. ngir mën a jàmmaarloo ko jafe-jafe yooyu xeex ba jàngoro yi si daaj yi dellu ginnaaw ci wàllu jigéen ñi. faf si di ab kuréel boo xam ni si moo leen lëkkale ci programme boobu nga xamee ni si ab programme bu ñu tëral la ngir fàggandiku ak itam xeex jàngoro jooju di jàngoro yi sida ñoom nag amaloon nañ ab lël bu nga xamee ni si dañ ci doon tàggat ay relais yoo xam ni projet bi moo leen tànn. pour ñun tam bu ñu demee sensibiliser sunu nawle ay sunu nawle jigéen ñi li nga xam ne bi mooy jàngoro jooju mooy VIH sida dana wàññeeku lu baax a baax a baax a baax ci biir ci biir réew mi ndaje moomu nag ñi ngi ko doon amal fii ci diwaanu luga mu lëkkale woon nag ay jigéen yu nga xamee ni si ñi ngi am lu tollook ñaar fukki at ak juróom jàpp ñeent fukk ak juróom-ñeent jóge nag ci ñetti département yi nga xamee ni si ñoo nekk ci région bu Louga gannaaw wérgu yaram mbirum euh, télécommunication solo si nga xamante ni rek euh, am na ko loolu nag waxtaane nañu ko fële ca daara ñu seen xam-xam màcc ci wàllu wow ay scientifique lañu ñu ngi bootu ci kuréel gi euh, ñu naan sud scientifique uni pour le développement di Jolof ñoo ca def ab conférence mbirum télécommunication li mu mën a jur waaye tey jaar-jaaram ak it fa mu ñu jëmee Modou Mbaye xale itam ma ne wax ne leen lii fi muy ñu ne dañoo xaw a ragal di dem ci matière yi yóbbu ci métier xarala yi dama yaakaar ne dañoo ñàkk xam tuuti rek ndax bu fekkante noonu xam nañ ci tuuti danañ ci jëm ndax métier am xarala mi gën a yeneen métier mi ndax métier bu ci bënn baax te boo ci def toppatoo ko rek soobee yàlla yàlla dina la léegi nag ñun ñi fi ne mënuñ fee ne tout le temps moo tax damay lancer appel ne leen dem leen bindu ci ci métier matière scientifique yi te itam bu ngeen ci amee ay jaax jale lu leen leerut lu leen wóorut am na ñu fi ne association baa ngi fi association bu ñu jaaxle dinañ ñëw di ma xool di ma laaj dinañ laaj keneen na keneen te ñaare bu ñu laajee dinañ am ay réponses yu leen yu leen apporté. mu doon euh, conférencier bi di dem euh, Demba Ndiaye docteur kona communication doon dellu si rek ci solo sa euh, li nga xamante ni moom mooy télécommunication ci développement am réew wàllug xibaar dañuy taxaw ni tuuti ci lu soxal Sénégal dem ba fële ca Mali ak élection ya ñu fa doon def kan moo gagné diggante la Cissé ak IBK teel na teelul tendance yu njëkk yi la mu joxe Ibrahima Kane kon mu ngi ci ligne bi ngir reeral ko gannaaw ba ñu amalee yooy jongoon joŋante démb Ibrahima kan ñu lay nuyu. maa ngi lay fay Ngoné Ngom. bu ci euh, altine ji lu ñu mën a jàpp ci wàllu xibaar yu soxol yooyee élection présidentielle kon. waaw élection présidentielle yi ni nga ko waxee ngoone ngoom kon Malien yi voté nañu ba noppi fi mu toll résultat yi la ñuy négandiku ci loolu nag kon commission nationale de centralisation du vote euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy faytu lépp lu tukkee ci bureau de vote yi nag ñoom ñu ngi ci liggéey gi jamono ji nii sànq-sànq la ñu fa jógee ñu ci mën a jàppagum daal mooy ci biir Bamako moom daanaka yëf yi fës na ba pare foofee jot nañ faa am tuuti xibaar ci biir Bamako IBK moom moo fi am quatre-vingt-huit virgule soixante-quinze pour cent Soumaïla Cissé am onze virgule vingt-cinq pour cent liggéey bi nag ñu ngi koy tàmbali euh, ñu ngi koy wéyal ministre bi yore wàllu administration territoriale bi nga xam ne ñoom ñoo organiser élection yi xamal nañu ne kon résultat provisoire yu njëkk amaana suba wala ginnaaw suba dinañ ñu commencé jox tendance yi ni mu tëddee wante pour biral ko moom xam naa ne fii ba àjjuma daal nee na loolee dina leer observateurs yi tamit euh, taxaw nañ tey commencé def ay ndaje comme ñoom ñoo ñooñu nga xam ne nag ñoom ñoo doon saytu élection présidentielle bu Mali bi ndax jaaral nañ ko ci yoon ki ci njëkk di bu Union africaine nga xam ne Eden ko moom moo ko jiite léegi léegi janoon na ak taskatu xibaar yi wax ne daal élection yi dans l'ensemble lépp euh, jaar na yoon gisuñu ci benn rëq-rëq. Ibrahima Kane ñu lay gërëm euh, di la sant noonu la ñuy jaare rek sarale dem ci xibaaru bitim réew yi nañ ko waxee France am na ku fa doon jéem ab attentat waaye it yeneen xibaar soxal Égypte ak it yeneen réew ak Aminata saw Euh, ca Égypte euh, coow laa ngi wéy foofee ñi fare ki fa nekkoon na njiitu réew di Mohamed Morsi ñu ngi wéyal di amal seen toogaayu ñaxtu loolu nag donte app bi leen police Égypte joxoon na daal dinay jeex démb ci ngoon police bi xamle na fii ki fan dina amal ab opération bu mag ngir mu daal di tuxal ñu toog foofee ci ñaari place yi nekk foofee ca ker loolu nag ñu bari tiit ni du ñàkk mu andiwaat yeneeni xeex foofee ca Égypte Euh, présidence bu Afrique du Sud xamle ni kii di Nelson Mandela mu ngi am tan bu baax moom nag ginnaaw feebar bu yàgg bi ko tëral euh, kenn ci ay sëtam nee na fi mu toll ni léegi mu ngi am tan ndaxte mën na toog ci kaw lalam waxtaan tuuti ba pare tëddaat waaye ñi nekkee foofee ci équipe médical ba nee nañu donte mu ngi am tan euh, teewul ba léegi mu ngi ci état bu critique ci pàttali rek Nelson Mandela toll ci juróom-ñeenti fukki at ak juróom moom mu ngi feebar mat na léegi ñaari weer jooytu mooy ab infection pulmonaire. ca France ab militaire lañ fa daal di arrêté moom nag da doon jéem amal ab attentat ci benn jàkk bu nekk foofee ci banlieue bu Lyon soldat boobu nag toll ci ñaar fukki at ak ñett nag mu ngi bëggoon amal ñaawteef boobu bés bi ñuy màggalee Korité mu ñu sukkandikoo ci ministre de l'intérieur bu nekk foofee ci France militaire bi dafa fare ci ñi ñuy woowee extrême droite radicale ci atum daaw nag sànni woon na ab benn cocktail molotov ci benn jàkk bu nekk foofee euh, ca France. ñaar fukk ak juróom benn prisonnier palestinien la ñuy bàyyi talaata gi ñu jëm ki ko xamle di kenn ku nekk ci bureau kii di premier ministre israélien di Benjamin Netanyahu lii nag di wane ni diggante Israël ak Palestine tàmmaliwaat nañu dox tànkum jàmm loolu nag ki ko jiite di waa États-Unis Aminata Mare Sow ba tey ci wàllu xibaaru bitim réew jëwriñ ju jëkk fële ca Norvège moom Jens Stoltenberg eh, am na ay kaddu yu mu eh, yëkkati nee na ci weeru ko juin tak bi muy def eh, campagne benn ngoon dawal na fa taxi booba ma ngi ci campagne électorale mu xam le ni dafa am solo mu xamoon askan wi li nga xamante ni moom la ñu xalaat dëgg-dëgg ci moom te bu dee nag béréb la boo xamante ni war nañ faa mën a wax lu ñu xalaat jàpp na ni biir taxi ba waral moo doonoon bi benn euh, vidéo bu ñu mu ci daal di posté euh, ñu filmer ko caméra cachée nit ñi Euh, doon wax euh, la ñu ca xalaat yenn euh, passager yi am ñoo xamante ni xàmmewuñ ko waaye la ca pëcc ñoom xàmmewoon nañ ko na ci dellu siwaat ci suñu yeneen i xibaar dellu siwaat nañ leen ko waxee woon it ci kon canal yooyu nga xamante ni kenn tëju ko waaye it mbënd mi nekk na ñaari mbir yoo xamante ni Serigne Mansour si Djamil bëgg na nguur gi taxaw ci njiitu réew mi nag la bëgg mu wut ci ay saafara ca na mu gën a gaawee ngir dalal askan wi yi ci ñoom métit njiitul loolu la ko xamle Mbour googa mu demoon fa euh, ci euh, loola mu duppee colonie de vacances programme am bii di inondation taxawal ko ñu ànd ci du Mamadou Diop. li ñu tuddee canaux à ciel ouvert muy bërëb yi nga xam ne moom la ñuy tuur ndox mi te duñu ko tëj nekk na nag jafe-jafe bu rëy ci askan wi benn xale bu góor bu ci daanu woon ci waakaam ba mujj ñàkk ci bakkanam tax na ba kii nga xam ne mooy Serigne Mansour Sy Djamil jiite mouvement bés du ñàkk da yëkkati kàddoom ngir ñu fermer bërëbu tuurukaayu ndox yooyu problème bi gën rëy c'est que quartier yi gën am affaire siburu bi ni foofu la jóge lu tax kanaal bee tax dangay jég jëda ñun la nit dee na te jàngoro bi ka rey doo ko xam kooku un médecin moo ko wax donc loolu war na tax gouvernement bi jël ay matukaay barki dem rek la benn xaleel euh, faatu lu tax mu faatu dafa dugg ci canal bi ñu ngi ñaan yàlla mu nàndal ko ci dee kaw sara si barke bés bu tedd bi mu gàttam bi que si basak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kooku tam danger sama chauffeur si boppam daf doon dugg rek dugg si Kaolack. leneen li nga xam ne Serigne Mansour Sy Djamil wax na ko mu jëm ci wàllu mbënd mi am ci banlieue bu Dakar Serigne Mansour si Djamil di sàkku ci njiitu réew mi mu gaaw indi ci ay saafara. li ñuy ñaan yàlla rek mooy que gouvernement bi jël ay matumaay yu ma sëkk pour que li nga xam ni gouvernement yi ko jiitu woon defuñu ko ñu def ko parce que population bi moo ko soxla. lu nga xam ni mënatul xaar maa ngi wax le président Macky Sall lii mënatul xaar ñi nga xam ne ñoo nekk au niveau le conseil des infrastructures euh, mon ami Seydou Ba ak ñi nga xam ni ministère de tutelle am yëpp ñu jóg si mbir moom parce que mbir la moo xam ne mi ngi faat ay bakkan mbir nag su demee bay faat euh, bakkanu jaam gouvernement bi nga xam ne bii mooy suñu kilifa ñun ñëpp gouvernement bi war na jël ay matukaay. muy saafara yoo xam ne sax ndaw yi jóge ci banlieue boobu te nekk ci colonie de vacances bi di sàkku ci lu mu gën a gaawee. sëriñ bi xam nga si def loo nii li affaire du baax suñu kër yaa ngi taa nit ñi amuñu fuñ dëkk amuñu ñu dox sëriñ bi ñëw jël ñu indi ñu fii kon boog ñoo ngi koy gërëm di ko sant suñu kër yi daal ñoo ngi bëgg ñu defar ko benn yoon ñu ñaan yàlla dootu amati ndox yam foofu. sëriñ Mansour nee na li nga xam ne moom la xalaat ci mbir mi jot na cee waxtaan ak ñu jiite réew mi. xibaaru euh, tàggat yaram euh, gaynde yi la ñu naan équipe A ñoom nag ñu ngi ci euh, regroupement tàmbali nañ ko fële ca Paris ñoom ñooñ yàlla jeunesse yooyu di waajal jongante xarito bi ñu war a seq ak Zambie fukki fan ak ñeent ci weeru août kon la ñu ko jàpp benn ndaje mu am solo soxalit dernière journée deuxième phase éliminatoire coupe du monde ñu nga ko jàpp kon fële. Eh, ca Ouganda uh, ba tey ci wàllu football waaye uh, fii ci uh, Sénégal ak 28e journée Ligue bi jàmbaar moom di gën a jege titre bi académicien yooyu ñoom daal daan yëgoo ñaari bal ci dara ka ko topp sës rëkk ca moom AS Pikine moom match nul la def diggam ak Duc ku ci ne benn bal nga dugal Jaraaf Linguère ñoom it match ku ci nekk ñaari ball nga dugal waaye football club moom wàcc na deuxième division gannaaw ba ñu ko dóoree ñaar ci benn ngor kon ñoom ñoo ko wàccee wàllu ko euh, basket euh, ba tey ji euh, tournoi international li ñuy waajal kon afro basket boobu 53 49 di kon li match boobu mujjee di jours ci ñuy waajal li di afro basket diggante fële ci Abidjan la ñu ko war a amee Cheikh Tidiane Diawo ak Youssou Baro moom moo teewee boobu final la ñu déglu leen. Sénégal daanu ci kanamu champion d'Afrique yi ci jongante boo xam ni ci simili yu mujj yi la mujje leer muy jogante bu bari jàngat ci ñaari entraîneurs yi. j'espère que. waajtaay bi ñuy def nii lu baax ci ñaari équipe yi la yaakaar naa itam bu ñu gaaw a tase ci jongante yi ñu dënmal. équipe bu Sénégal moo nar a jël pee ci poulam ñun itam noonu maa ngi leen di ñaanal bu baax. toll nañ foo xam ne ci ci préparation bi ne euh, mu ngi ci deuxième phase bi. deuxième phase bi nag jafe la ndaxte da nga bëri joueurs yoo xam ne dañoo bëri Tunisie bu muy ñëw 14 lay indi ñun ñu ngi am fukki joueur ak juróom-ñeent da nga war a tourner équipe bi ñëpp jouer pour nga mën leen évaluer loolu nag dafa jafe si ñun ndaxte xam nañ ne ko joueur bu nekk war nga jox chance am pour nga mun ko évaluer xool lacune am ak ses sa progression loolu nag lu jafe si ñun moo tax Tunisie dañ koy gërëm bu baax parce que champion d'Afrique ñoo joué ñun def xool ñun fu ñu toll fu ñu toll nag des na lu bëri si défense bi. parce que lu ñu soxla woon pour défense bi ba la ñu bëggoon encaissé weesu nañ ko attaque bi la ñu bëggoon dugal egguñu fa ndaxte fukki poñ ak ñaar fukki poñ la ñu bëggoon dugal par carton wala defuñu ko ndaxte nag buñ ko commencé def ñoom xam nañ ne mu mënuñu téye ñoom ñu dem zone match zone loolu nag moo wàññi suñu.

Euh, chez l'équipe de. métti woon na lool joueur équipe Sénégal yi def nañu seen kenn kattan ngir am seen place ci équipe bi ñun ñoo yor raaye basket fi mu toll nii ci Afrique moo tax ñu bëggoon daan waaye match bi neexoon na lool. c'est un bon match bon très bon test pour euh, les deux équipes à de de dix donte jël am na gaynde yu Sénégal yi ñu ngi ci yoon bu baax dinañu yeggali liggéey bi fële ca Burkina Faso ci tournoi international bu nar a dalal équipe yu mel ni Algérie ak Égypte. Dalmeda meneur de jeu ci euh, équipe bi moom euh, ñibbi na France dafa forfait ndax daal dafa mujj am benn euh, gaañu gaañu ci tànkam kii di nag coach bi entraîneur bi kon Cheikh Sarr am na kàddu yu mu ca dénk Cheikh Tidiane Diaw. Xandalmeda dafa gaañu si tànk te bu muy gaañoowee France ko fekk muy joué mu am opération un mois demi un an et demi joué wul bu ma ko wooyee nag respecté na équipe nationale respecté na bi mu ne ma dinaa ñëw def na kéem tolluwaay kattanam pour rester ak ñun joué na ñaari équipe match contre France bi bu mu jeexee nag muy entraîné ñaari yoon toog benn yoon ah ñaari benn yoon après mu gaañu si carrière moo nekk en jeu kooku nag mun mënoo ko wax ngir yàlla toogal kooku da nga koy demal faju ji nga continuer jouer sa nga des ni nga meloon nga fexe ba romb ko suñ la solo atee ñu woo la je pense que loolu la ñu waxtaan ak moom ku ñuy gërëm la nag ak ku ñu vraiment ñaanal pour mu jëm si kanam ndaxte xale bu am xol la xale bu gëm maillot national bi de xale boo xam ne wan na ne place mu ngi fii daal te beneen yoon incha allah ak ñu lu mu ñu wan ak luñ ko wan ñun tamit duñ ko waatee di ñëw. gannaaw euh, tàggat yaram dañuy dikk ci pàcc bu mujj bi ci journal bi yéenekaay yi la ñu xëyee tey jii kii di euh, Fatimata Ba moo koy faram-fàccee. dal leen ak jàmm ci li ci yéenekaay yi dem beeg dikk bi tàggatem bi na lool tey jii ci biir réew mi yëral xët bu njëkk bu la populaire Alassane Ndoye ak ñoñam di ay transporteur yu bootu ci CNTS ñoo xëy banque seen yoxo bokk na ci li ñuy nakarlu chéraayu essence bi mbirum permis à point yi waaye itam gaaru pompier bi ñu bëgg a toxal yóbbu ko ca Pikine waaye seen i grève boobee transporteur ya yeewoo ca Touba bokkuñu si ndax Serigne Sidi Mokhtar Mbacké moo leen ko ñaan ñu daal di koy bàyyi ba tax na foofee ndigal la ñuy demee Thierno Alassane Sall di jëwriñ bi ñu dénk wàllu dem bekk dikk bi ne ci biir yéenikaay wi dinañ def seen kéem kattan ba askan wi duñ ci am ay jafe-jafe waaye mel na ni loolu ant antuwul ndax tey xëy nekkul woon lu yomb ci ay sénégalais yu bëri juboo am na ci diggante njiitu réew mi ak jëwrinam bi yor wàllu bitim réew ba woon Macky sàll ak Alioune Badara Cissé waxtaan nañu ginnaaw bi ko xalif général des Mourides Serigne Sidi Makhtar Mbacké Sakko ci noonee Macky Sall xamal na ABC ci biir l'observateur ne lu ñuy doon doon ay waay du tere ñu waxante dëgg ABC tontu ko ne waaye nag ak jafe-jafe yu mënti am war nañu mën a toog waxtaan ngir gis ci saafara seen waxtaan boobee ma nga amoon ca palais de la république le quotidien moom ci leneen la xëy ci yorinu négu niku société aéroportière bi di AHS la taxaw def ab seetlu yéenekaay bi ci turu société bi la sukkandikoo ngir rekk tënk li fa xew AHS le quotidien ne moo di accaparement serment maanaam akimo horrible di jéggi dayoo ak sans scrupule maanaam ñàkk si am looy seet yéenekaay bi ni avocat actionnaire yi société boobee ñoo sàkku ci CREI yi ngir ñu jële fa Abdoulaye Sylla mi nga xamante ne moo fa nekkoon laas ne li xew foofee ci HSK dafa jéggi dayoo dafa doy waar ndax administrateur bi di Abdoulaye Sylla yor na bor bu tollu si juróom-ñetti millions ci suñuy koppar mbirum HS nag ku ko wax tudd ci Karim Wade wax na ci rëbës gi mu nekk doomu njiitu réew ba woon ne ñu koy tuumaal yépp defuñu ci dara waaye nag li ko ci gën a metti moo di ne léegi dañuy yàq deram kii moom jëlee nañ ko ca DPV de Dakar Papa Albouri Ndaw ginnaaw bi ñu bëri nakarloo ni mu yoree kër googe juge commission d'instruction bu CREI yi ñoo jël dogal boobee ñu daal di ko jëlee ca DP World grand place moom dafa des ci mbirum transhumance bi ci bennoo yéenekaay bi ne demuk nafisatu Diop bi ci APR bien mal ak ki la ko gisee ci président Macky ndax Nafissatou Diop ñëpp ci réew mi bu Idrissa Seck lañ ko xamee xibaaru bitim réew yi woote présidentielle bu Mali moo ci gën a fës amal nañu second tour bi niki démb ci résultat yi ñu jotagum mu mel ni Ibrahima Boubacar Keïta moo nar a jël raw gàddu gi jongante bi nag mi ngi doxoon diggante su may la Cissé tàggat yaram championnat du monde d'athlétisme 2013 bi am ca Moscou Ami Mbacké Thiam bokk ci ñi fa teewal Sénégal démb nag lañ ko éliminé ci demi yi ba waree na fa bàyyi ndax jël na retraitam international. ñu koy gërëm di ko sant Fatimata Ba di leen jaajëfal mbokk yi yéen ñu àndaloon ci xibaaru digg bëccëg incha allah rédaction bi dana dellu si 19h 20 ci yeneen i xibaar lay doon ñu yendu jàmm.